Sénégal mbokki Saint-Louis maa ngi leen di nuyu mbokki goxi mbaaj am nañu mbégte ñëw fekk leen fii tey du suñu bés bu njëkk ñu ñëw seet si leen ndax ñëwoon nañ fi bi ñuy inauguré centre de transformation bi ñu jagle woon jigéen ñi ci goxu Mbaj ndax man mi man maa ko financé woon booba dama ñëw fii ci Ndar te ku wax Ndar wax activité principale bi ñu fiy def mu jëm ci wàllu napp ma wër goxu mbaj ba ñëw Guet Ndar déglu ñi nga xam ne ñii ñooy dem ci géej gi ak ñiy jëfandikoo luy jóge ci géej gi ñu wax ñu jafe-jafe yi jafe-jafe yi nga xam ne nii nag moo am fii ci Ndar benn bi nga xam ne bii ñëpp xam nañ ko mooy conséquence li fi xew mooy jën wi manqué na jën wi manqué na tax na xale yi daan liggéey ci jën yi ñu bari ci ñoom mbëkk nañ ba dem kon ñu war cee trouver solution. Je connais déjà des difficultés qu'il y ici à Saint-Louis, euh, difficultés principalement dues à l'absence la, de la ressource. Aujourd'hui, le poisson devient rare à Saint-Louis. Et quand le poisson devient rare à Saint-Louis, Saint-Louis se meurt. Et Saint-Louis ne se meurt pas seul. Saint-Louis, quand il se meurt, emporte également euh, beaucoup d'autres contrées. Euh, des problèmes ont été posés, c'est d'abord le problème de l'embouchure. J'ai pris l'engagement durant notre mandat, si nous sommes élus à la tête de ce pays, de le régler. Ça également, c'est des dispositions qui vont être prises parce que ces problèmes d'embouchure ont déjà fait beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Et ça, nous le comprenons tous. Et tous ces enfants qui sont, morts au euh, niveau de l'embouchure les enfants essentiellement de, Saint-Louis. c'est d'abord la première Et je leur ai dit, normalement, le problème de la plateforme, les problèmes que vous rencontrez maintenant devaient être posés lors de la restitution de l'étude d'impact environnemental. Ça, n'a pas été fait, mais toujours est-il que c'est des conséquences qui sont là qu'il faut prendre en charge. Et je m'engagerai en tant que gouvernement, même s'il faut trouver des relations, des, licences pour, pour, ces, pour ces petites pirogues avec la Mauritanie, pour que ces, pirogues puissent également الخليل